asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal nga bokk ci ñu koy njëkk a gis way leen di like di commenter ak a loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax ñu ñëw ci kaaw Saliou Ciss ndaxte démb dafa am ku ma laaj ndax Saliou Ciss dafa am euh, club ma ne ko noonu amagul club ba léegi ah Saliou Ciss instant bi vraiment amatuñ ay nouvelle am loolu noonu vraiment jaaxal na mu bu baax a baax

l'un des meilleurs tournois, parce que tournoi, la canne, tournoi, la compétition, donc l'un des meilleurs tournois de sa vie. Donc, nga a ci amoo club joueur bo xamante am nga 30 ans actuellement un club donc yow am nga maturité am nga expérience et tout yag nga ci football donc yow sa un rek pour pour mën sa bop club waxuma nak ay agent et tout vraiment ça Ciss problème ça Saliou Ciss ce la là mom man ma len ko